assalamu alaikum mbokki taalibe yi mbokki juliti wa keur Serigne Touba Las Palmas ñi ngi nuy ñep di ziar ñep di ñaan suñu borom jéxal li fi xew ci jamm ak salam ba kenn ku nekk wat ci sey yitte fasiyene ligéyal Serigne Touba ci Serigne Touba yi and nañ ko nak ak suñu kilifa. suñu alaaji ba Cheikh loo ngi nii sëriñ Abdou Fall Lamp Baab Muridaa ngi nii ñun taalibe yaa ngi nii président yaa ngi nii ñu ngi fexe ba lépp loo xamante ne maanaam ndimbal li fépp fu taalibe sëriñ Touba nekk ñu fekk la fa jox la la nga yellool di ñaan nag lépp jeex ak jàmm jeex fépp ndax ñun de amuñu fudul fii ñu liggéeyee it di ñaanal julliti yàlla yépp nekk ci jàmm li jeex ak jàmm kenn bañ a manqué di ñaan bu baax a baax a baax a baax a baax a baax li nga xamante ne moom mooy liggéey bi ñii ci nekkoon di ko jóg di ko dox nekk ci maanaam sëñ Abdou Fall Pape Cheikh Lo sëñ El Hadj Baye Ibra Fall ak euh, président Pape Gueye ñëpp a ngi ci rek ñuy jéem a fexe rek ba nga xamante ne maanaam lépp mate di soññ nañ ñu nag taxawu nañ ñu won nañu yoon bi di nuyu ñëpp di jaar ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañu yàlla defal yéen ak jàmm amiin barke Sëñ Fallou amiin barke Sëñ Fallou sëriñ Tuubaa yàlla defal na. amiin yaa rabbal aalamiin. man mii itam yàlla yàggal leen suñu kanam. amiin. yéen gone yi itam lu la. amiin lii nag day symbole bu wane ne rek. Mhm. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mhm. rawatina sëriñ Tuubaa mi nu mi nu bokk. kenn mënu koo séddoo. kon nan rafetal xel yi rafetal yéene yi te jàppante. te xam ne àdduna dara nekku fi lu dul lii ñun ay taalibe Serigne Touba lan yaakaaruñ ku dul Serigne Touba yal na yàlla gën a boole xol yal na yàlla dolli jàmm amiin barkeb Serigne Touba amiin amiin amiin amiin amiin ak Serigne Fallou waaw kàddu yi de moom kàddu rafetlu la sunu xelit daal daal sax sunu xel daal kuy lëggéeyal Serigne Touba surtout sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall toog te moo doon wax noonu mooy sëñ Abdou Fall kon sunu xel dal na ndax làmp mooy baabu muridiina kon ñun ñëpp sunu xel war naa dal xale yi itam man li ma daan wax rek laay wax sunu xel dal na noo leen di ñaanal sunu borom ba may leen fan gudd ak wér ak koom ndax loolu moo jig ab murid yàlla na ko sunu borom defal. lii nag ab tàmbali la. noo ngi jëm ca kanam jooju yi nga xam ne moom ma nekk ca Touba mun nii noo ngi jëm ci kanam. lii ab tàmbali la suñu borom ba yéen mën na koo yokk waaye dañuy ñaan nag ci tàmbali bii nu ko tàmbalee te lii xew ci réew mi mu yem fii amin yaa rabbal alamin feebar bépp jeex ci àdduna sépp lii da koo tàmbalee amul murit amul xaadir amul tijaan lii jullit yëpp rek tax na di ko def ndax suñ mutala moo waxoon ne mhm. kërub lislaam mhm. te kër gii ñu koy séddale te kërub lislaam nag mooy kër gi ñuy wax kërub sëñ Tuubaa mhm. jërëjëf Gracias.